nekk xaritam waxtaan wi ñu mujj waxtaan man ak moom ci Sidi Ndaw lañ doon waxtaan. tubaarkàlla macha allah xew-xew bi mu amee Omar Ba dagg ay yitteem daal di ñëw ci hôpital bi fekk ñu fa. nga propriétaire yëpp ñëpp a ñëw. tey boo xoolee Marissar Ferran yi ñoom Ousmane Thiam ak entraîneurs yi ak sooke yi ak ñi nga xamante ni ñooy ñooy supporters yi tey Louga Kokki Njaañ Guyaar Tivaouane Ñagg Thiès Sangalkam fenn desul ak kër njaayloo Lo ñëpp ñëw nañ gunge si bàcc Samba Koura ci këram gu mujj. ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni tey am nañ bis mu metti mais nag yàlla du bëggee ñëpp ñàkk bàcc suñu bàcc ñëpp la bàcc c'était un régulateur ñëpp xam nañ ko ci course muy nitu dëgg du wax lu yoonam nekkul tey mu seq ak ñëpp jàmm donc li ko dal nii ñun ñëpp suñu kaw la wadd moo tax tey ñu am lu ñu metti lool lool lool ñun ñu nekk ci fas ak ñi muy liggéeyandool ci activité professionnelle am donc ñuy ñaan yàlla yàlla xaaree ko àjjana parce que ku ci nekk rek lu mu tuuti tuuti am na fu mu la mës a féete waaw man nag dama nekkoon rakam boo xam ni mu am lu fu bëri fu ma teg waaw lu muy def dina ci dugg concerté wu ci ak man donc mu am ci lu ma metti lool ndax bi ma ñëwee dama faa def vingt minutes même pas ci la dog waaw donc may ñaan yàlla yàlla xaaree ko àjjana te li mu fi def lu baax yëpp yal na ko yàlla fay yomal xiyam waaw di ko jaale ñëpp. Euh, lan xam nga li ma gën a marqué mooy bàcc lu muy def danaan xaar ba Ouma ñëw ci tukki yi ñu daan ànd ak yëpp bàcc jéemul xam sax sama digganteeg yàlla day naan ma billet ñaata euh, hôtel bi ñaata yëkkati xaalis jox ma même à l'époque bi ñu daan dem ay euros enveloppe bi man day ubbi lu ñu war a jënd daal ñu ma fayal fu ñu dem lekk day njëkkanteek man fay.

donc bàcc c'est une grande grande perte bo xamantene mom dal mi ngi non dal yalla mo xam yalla ko yalla xaree àjjana démb bi sama fas bi 4e mom la mujjé waxal moy wo di ma féliciter ne ma bii di ñëw dina jël premier sa après si leen ma woo ma suñ borom jël nako bëgg ñëpp ku am problème bàcc moy moy moy moy moy mooy ne ci digënté bi vraiment nek nek nit ku nit ku disponible baax dal xébul kenn dal lool dal la am ay seede yo xam ci la xam ci mom dal waaw di ko ñaanal vraiment yàlla na ko yàlla xaaree na jéggal ko ay bàkkaaram fi mu jëm d'accord ko fi mu jógee. mais bàcc amul dara lu lay marqué si moom parce que chaque jour nit ku nit ku baax la chaque jour mi ngi def lu baax chaque jour mi ngi wax lu baax xam nga bu fekkoon ne sax boo waxee rek mu ne la copain copain rek lay wax xam nga. et copain bu la wooyee na la gëj nga ma woo gëj nga bu ñuy dem ànd bu ñu nekkee Toulouse bu ñu nekkee Longchamp fu ñu mënti nekk ñooy ànd. bu ñuy fay sax defa day njëkkante ak ñun comme ni ko Omar waxee mais ñun daal ñàkk nan mais yàlla na ko yàlla xare ajjana te am eh, eh, ku ko mën a dudd si li mu soobu woon yëpp yàlla am ku ko ko mën a duddul si njabootam si dara jëy Seydina Mohamed. tey nag wax dina jafe. waaye ku dëgërloo suñu borom rek ànd ak moom. lépp dana la yomb nañu delluwaat ci sunu borom xam ni moom moo sàkk jaam ñi moo ñu moom te mooy dogal tey ñaan yàlla bu ko ca jiitu ci bàmmeel yàlla na ko yàlla xare ci àddina firdawsi am nañ njortu lu rafet ci moom ndaxte tey fii dëkk bu sell la muy suñu dëkk maam El Hadj Malick radiyallahu taala anhu taxawul islam taxawaay bu nga xam ne tey waxuma la Sénégal waaye adduna bi yëpp foo ni werdu salaatu faatiha nga yor ñëpp ni est-ce kon tey nañu sant yàlla suñu borom maanaam duñ ñu mbégte la ci ñun mm-hmm. waaye sëñ Tuubaa dafa waxoon lu am solo mm-hmm. mu ni jam bi gën ci jam yi moy mhm. ko nga xamni lu yalla def na la neex kon tay dañuy sante mhm. sun borom te diko ñaanal yalla sun borom xare ko ci adina fi rawsi bacc mi mhm. billahi wallahi tallahi man xamna ni fas yeb ngexal nañu c'est l'émotion ba legi xamna ni fas yeg nañ ni ki len daan dimuli dem na ba loola nag mooy fii képp ku fi taxaw tey jii rek wala re bàcc nga di borom fas di amateur di propriétaire di jockey ah ba ci sunu docteur vétérinaire bii nga xam ni ñoo moom la woon démb ak bërki démb ba tey kon nag danaa la wax leen de kursu ñàkk na koo xam ni amul moroom dama ni période bii daaw danaa ko wax nag ndax wolof Njaay dafa wax lu defu waxu heure bii daaw ba ñu tolloo en difficulté xaalis bi yéex a ñëw 10 million la yëkkati lebal ko CNG bi te mosu koo fay bañ fay ko ko baax dem na nit ku bëgg sama njaboot man ñu di seen baay nit ku bëgg sama doom ji ak ay magam yemale bu leen ak kenn boo waxee mu ni ana Umar Baaw du mu wax ñu ne ko Umar nee na waaw mu ni d'accord naa ko. bi ko yëgee moom vraiment nekk na lu yéeme ak lu nu lu nu bett mais bon yàlla moom kenn du xëccoo ak moom donc lu mu bëgg rek dañ ko si fekk si xanaa di ñaan yàlla rek mu xaaree ko àjjana mu tey rëm ko. Euh, lan moo la gën a marqué ci bàcc li nga nekk ci course hippique yëpp. waaw vraiment nit ku il avait un grand cœur nekk nit ku baax. nekkoon vraiment suñu suñu suñu suñu suñu exemple parce que wax dëgg yàlla yàgg na ci course te jàmm ak salaam rek loo ko ñëpp xame euh, ak fair play tamit bëggul woon kenn mer toujours moo ngi moo ngi defar donc euh, vraiment ñàkk nañ koo xamante ne daal ku amoon solo si ñun la ni ñaan yàlla rek yërëm ko xaari ko àjjana. kenn ku ne xam na ni bàcc jëf lu baax rek la nekkoon tabax na jumaa kuul mhm. dimbali na. turam bi mu mujjoon a organiser turu famille bi man mi maa fa nekkoon keroog mu dajale kul gépp mbokkam yi sant Diop yëpp mu dajale leen. wallaahi moom la kenn ku ne mu yëkkati ay teraanga di la jox. loolu mbaax doon ko man te mbaaxam ceeg mbokkam la ko njëkkee. di ko ñaanal yàlla yàlla fa mu jëm gënal ko fi mu jóge mais ñàkk nañ koo xam ne aussi le monde turfiste goomu ñu gaaw ati ko am. un homme généreux. un homme qui foo ko fekk bu fa toogee yaa ko fa bàyyi. vraiment un gars qui nous a beaucoup accompagnés aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger Mon ne ci course yi investir ci loo man barki démb bi ma invité place am ma dem visiter ko sama yaram da doon daw parce que dama fekk ci investissement dama ne mais li naka la ko nit mu réaliser té vraiment mom affaire bi passion rek la ko def outu ci dara parce que yewul ben gagnant bu mënu ñu wax waye mom passion ak bëgg-bëgg élevage am moo ko ci lolu lolu mu def nak yalla dina ko fay yalla ku liggéeyal euh, fas def ci teranga yalla ci boppam moy mengo say mbir yalla mo yor sa affaire ñi ko ñaanal yalla dal yalla xalel ko ci agina yi gëna ko ci agina yi waaw mbettel rek mbettel mais nak dañuy commencer rek ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla mom su bëgge ñëpp ñak dante dañu mëna wax dal moy sédé ci bacc nit ku baax nit ku yewen nit ku labir nit ku oyof wa deug yalla li ñu doon ni sa fan yi damay wax sànq nit ñi ne dox na ci deux cent pour cent la ci duggee woon. dem ci course bi ma dugg si moom laa njëkk a dajal mu wax ak man ne ma sa fas moo am quatrième kontaan ci wax ma ñu jógee fa ñibbi bët set ñu annoncé ñu vraiment lu diis la lu ñu bett la yàlla na ko yàlla xare àjjana. inna lillahi wa inna ilayhi ngi sant yàlla bu baax xam nga bàcc moom sunu la ñu ngi ñaan yàlla xaare ko àjjana nit la koo xamante nitu ñëpp la. ku mu dajal. mbaaye jàmm ak salaam la si xëy ñëpp. ñu ngi ñaan yàlla xare ko.